Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul au Gabon, 17 au 14 août 2022. jaar-jaaru Serigne Touba ci diwaanu Gabon caravane culturelle bu ngeen ànd ak Tawfekh Production di ngeen dund yooyu lay bis yu ràññeeku diggante juróom-ñaari fan ba fukki fan ak ñeent di ayu yu ñuy del siwaat ci taarixu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba jaar-jaaram ci Gabon tukki ci géej gi lu ko dalee Montagne Sainte jaar Mayumba Lambaréné ba Libreville taarix bu am solo tukkib juróom-ñaari at ak mboolem activité culturelle yu gunge bile caravane di ngeen ko mën a dund ak Tawfekh Production mu si ànd ak ay partenaires am yu koy gunge si boobule voyage voyage bu am solo Sénégal ba Gabon jaar-jaari seen Touba Cheikh Ahmadou Bamba ci Libreville Mayumba Lambaréné Montagne Sainte Tawfekh production di si ànd ak établissement Mbaye et frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen si bisu tedd yooyee gunge leen si bisu ràññeeku yooyee si bis yooyee nga xam ne di ngeen si fàttalikuwaat ak a jàng taarixu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ci diwaanu Gabon ñu ngi dëkkmal 18 safar 1444 lii ab wàccaay la lii ab yóbbal la ak Tawfekh production